damay agressé quoi dama lay agressé parce que yow waroo seetaan yow. ma bëre yow man ma bëre. barke Serigne Touba soo bëggee ma bëre ma bëre. man waaw dëgg ma yow xam nga ni mbëri ndaw yaay tapper lañ yow loolu leer na. mbëri ndaw non ñi may ragal a jël ay tapper lañ. mooy kenn du ci ma ci jël ma duma la. barke Serigne Bamba. barke maam Seex ku ma ci jël xam ne laal nga laalaakee. ñu kan ak a. waa kan moo gën a. Tapha Mbeur na ñëw ma bëre ak moom may ko saas. xale bu ës la. bu ñëwee ma defaral ko. Ah, ah ah ah Tidiane Faye na ñëw. le professeur. daan. war naa mën a bëreeg yow. kuñ ci daan. Tijaan non kuñ ci daan soxlawuma la man caay victoire laa nekk ku daan laa soxla. man ku daan laa soxla nga ñëw ma jàngal la nan la ñuy bëree grand combat loolu la. mais nag dama am ku ma laaj. mu ne ma benn booy du taxaw. laaj ma gerte sek loolu moom doo ko dégg ci làmb. booy liñ bëgg moo nooy. nekk xale bu ndaw bëgg a yéeg jaar doo jaar ci fenêtre bi mënul nekk escalier yi dafa am. mais du nga ñëw stade dëkk la sax na la ci yoon ci yoon promoteur yi ci yoon dañoo waroon def booy bu ci yéeg te jaaroo ci man doonoo champion booy dañoo war a jaar ci man man maa yor livre bi booy bu jaar ci man dem da ngay xam ni yow dem nga mais booy bu jaaru ci man ci loo jaar day nooy nepp. man nooyu ma de damaa dëgër këcc barke alxuraanu karim góor yàlla te du ma bàyyi su ma namee bàyyi doon dóor daan moo ma ko gënal oto di jaar sama kaw barke Serigne Saliou waaw tama xamal leen nag man paa buy entraîné laa damay liggéey damay musoo ma gis ma samay taa wàcc musul am naanu ma doom naanu ma dara damay fubal quatre-vingt-dix minutes fubal laa la quatre-vingt-dix dama koy fubal booy bu ma si jël duul merci maa lay jaajëfal.